fas yéene séq ak moom waxtaan bu ko defee gars yi gën a xam kan mooy Abo yi mbër nuyu naa la. maa ngi lay fay. ci loo ne. maa ngi gis jàmm bu baax a baax. nakay tey. sant yàlla bu wér kay. yàlla na sant yaa ngi. amiin amiin amiin. waaw mais ci loo ne. waaw maa ngi nii rek toog rek. Euh, lan ngay nuyoo gars yi lay seetaan. waaw gars yi sama gars yi maa ngi di siyaar ñoom ñëpp aw ma seen fay xam nga gis nga chaque jour nii lay demee boo ñu fekkee chaque jour combat am ak ñàkk am yëpp nii lay demee di nuyu sama coach bi ak Jalaw dëgg xam nga di leen siyaar bu baax Konaté ak Maliga yee maa ngi leen di siyaar bu baax nuyu sama gaay yi ñoom Sow ama gaay yi déplacé wu ñangal ñoom Zimba ak ñoom Mbaye Dragon ñu siyaar gaay di leen euh, kan mooy Aboy avant tout. Aboy waaw benn waay la rek bu nekk fii benn boy xam nga yàlla moom mooy may quoi yàlla teel ño dimali xam nga ñu commencé depuis. 2006 quoi. 2006. 2006 waaw commencé Mbapat. waaw commencé bëre Mbapat. on est en 2020 quand ça fait ça fait 14 ans. Ouais, mhm, ça fait 14 ans mais 14 ans c'est bien 14 ans yi dañu doon il ay bëre ay lambi mbaal quoi. ay lambi mbaal lañ doon bëre ay 2013 il a laa commencé bëre ay lambi baas quoi. mais Mbapat yi ay Mbapat yu ndaw la comme Mbapat yi tefe ji rek. nekk ay xale yu ndaw. voilà noonu boobu lañ commencé bëre ay 2006. exactement que mën nga ma wax déjà fi nga jaar ci ci bëre simple bi déjà avant ngay dugg ci arène bi. Mm, waaw bëre simple bi jaar naa si ama yàlla di ma si dimbali may jël mbabat di waaw di jël ay drapeau yàlla di ma dimbali may jël ay drapeau 2018 daay lay doogaa jël nag commencé jël ay tonnes ciment xam nga. 2018 2018 waaw si biir 2018 bi si laa mas laa doogaa jëlee nag. fan la woon Diofior laa ko jëlee. le 13 janvier. nga jógee fii dem ba Diofior bëre daan ñëpp jël. waaw sama première nag fa laa ko jëlee. Mm. kon ciment bi fan la woon. kon ciment bi maa nga ko jëlee woon ñangal. ñangal ñangal waaw 2015. ñangal waaw dëkk la bu nekk fii rek waaw 2015. kon kon kon dèjà kon mën naa ne mbapat yi am na loo ci def. waaw def naa si lu bëri moom wax yàlla def si lu bëri wax dëgg yàlla. Eh, eh, ñan nga fi bëreel dèjà bi ngay mbapat ñan nga fi bëreel combat nommé. combat nommé waaw combat nommé moom li ma si am bëri na. comme ñan ama naa fi ak ay kii nu mu tudd di armee bu ngéwél jam bu ngéwél bëri ngeen waaw armée bu ngéwél bu jam ñaaje waaw bëri nañu dañ njëkk a bëri mbapat après ma daan ko léegi bi ñu dajee combat bi mu daan ma ko waaw ñangal la woon sax ñaar yoon ñaar yoon lañ bëri waaw à part ça ñan si des moom ay waa fii la waa jalaaw quoi xam nga rek naasul ngeen tudde seeni tur quoi. <laughs> ah bëggoon tudd bëggoon tudd turu gars yi. non nañ benn niveau bi moo tax. ok instant bi yéen a bokk benn benn mën naa ne yéen bokk drapeau bi ngeen di défendre. kuy génn instant bi drapeau euh, euh, yéen moom nga yóbbu. jala voilà noonu la demee moo tax ñu bëgg a jël le rafetal ko léegi moo gën. mais noo mel ak euh, mbëru mbëru yéen yi dèjà boo ne yéen dèjà mën naa ne ay dara fi la dëkk. yaa ngi may dégg Assane Diop arobase mu ngi tout près eh, eh, mag yi nu mu tuddati doomu jalaaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi. waaw ñoo ñëpp fii lañ dëkk ñoo bokk même dëkk xam nga jàmm ak salaam lañ seex ku si am combat ku ne gars yi dañuy ñëw jàppale la tey jii niñ ma teewalee ñoom bu ñu amee émission man noonu laa leen di teewale xam nga ñuy seex jàmm daal moo yàlla di ñu dimbali ñuy défendre yéen xam di défendre daa yéen xam nga di ko bëgg indil ndam nag saa su ne mais benn instant yàlla moom mooy maye quoi. numéro 10 bi lan la. waa ah, numéro 10 bi gars yi la rek supporters yi ñoo ma ko tuddee. gars yi de gars numéro 10 bi yow la yow laay gis foo taxaw sol numéro 10. numéro 10 bi nu muy représenté. waaw ah, noonu la demee mi mi mbapat waaw ah, sama benn copain moo ko tàmbinaloon kii la mbay mbay jigal ko waaw moom ko tàmb après ma commencé di ko sol xam nga numéro 10 bi méngoo kele yi may def quoi xam nga yàlla. <laughs> nga mel ni numéro 10 ci terrain. voilà noonu la demee léegi nag supporters yi dem ba am habitude boobu quoi. waaw moo woy nii ba léegi. des fois numéro 10 rek laay wax. waaw noonu la demee nag même gars yi sax loolu lañ may woowee ah. noonu la demee alors numéro 10. Hmm. mais 10 bi jig na la. <laughs> waa jig na ma moom wax dëgg yàlla jig na ma trop. Euh, par la suite nga dugg ci euh, arène bi fas yéene dem doorante ji dèjà bala ngay dugg ci arène bi dèjà euh, fii ban écurie nga nekkoon. fii nii non néew ma woon si écurie nag fii amoon na écurie mais ñun bi ñu laataa ñëw écurie bi daa yàqu quoi. kaay baax laa njëkk a nekkee si écurie ba. kaay baax nga njëkk a affilié. waaw depuis 2016 ans. mais def naa fa deux ans doog a bi rek premier combat rek. ok ñëwee da nga nekkoon xale gars di la tàggat. ne booy bi dañ koy rënk fekk deux ans. non doon nañ ma jox sax mais xam nga rek paa bi moo àndul woon quoi. ama dëgg lébu yi moom bëri dóor bi dañ ko xawoon a ragal benn instant loolu moo tax mais gars doon nañ ma jox combat mais jëluma ko woon. Mm, euh, par la suite nag en 2000 lan 2018 euh, nga dugg ci arène bi wala 2016. 2018 laa dugg ci arène bi mais 2016 laa nekkoon ci écurie Kayba. ok 2016 mm. nga affilié nga bëri sa premier combat dans l'arène. waaw 2006 laa koy laa koy doog a bëri le février. waaw man Mamady Diouf. Mamady Diouf man. bu est-ce que du waa Thiès. non Mamadou Diouf bu bu rëbës la. ah, ah yaakaar naa Thiès la. mais boobu fan ngeen ko bëree. Thiès lañ ko bëree Thiès lañ ko bëree waaw mooy bii Baye ma Ndione di bëree moo du ànd. jour boobu la waaw. sa premier combat. sa premier combat waaw. nga bëree daan kii di Mamadou Diouf numéro 2. waaw ma daan ko waaw. bi nga ci jógee après. le 22 avril ma bëree Mortala daan ko tamit. Mortala waaw. nga bëreel sa deuxième sama deuxième combat Ibomar. nga waaw.

Boy 2 montagne bu euh, non la troisième combat 3e combat waaw. mako 36 secondes la. quelques secondes 36 secondes une minute xam na ko. dafa sifflé nga dox ci kawam. dafa ma arrière ma bu day mu rek saison combats trois victoires. Mhm saison bobu 3 combats 3 victoires la def. ok euh saison bi euh ce premier combat euh, euh, saison suivant bi ñu jox la. mort ki lañ ma jox pap sosé pap sosé waaw kii non non ki way euh, num mu way euh waaw pap sosé bu rek. Pape Socé waaw euh, euh, mom la daan sama quatrième combat mom la daan waaw 5 janvier. 5 janvier waaw. waaw maa ko daan parce que bi biroon nañ lu mat ay 2 minutes hein mais da don daw quoi. après dafa joge ci ay victoire nga joge ci ay victoire. waaw ñu dajeeg ñu mag moom parce que moom mu ngi doon wax ne sax mbooloo moo ñu boole mais du palmarès quoi. moom da laa jiitu ci làmb. voilà noonu la demee. ma ne ko nag xam nga garab si kaw lay fekkente. mooy deux 2012 la dugg ci làmb ji. yaakaar naa bëre moom dégg naa ko quoi. 2018. yaakaar waaw. est-ce que du 6 ans yaakaar naa. 6 ans la waaw. Mhm. par ngeen bëri. waaw ñu bëre ma daan ko. ñu bëre ma daan ko après si laa jógee si moom. Paul Maurice numéro 2 le 31 mars. Paul Maurice Paul Maurice bu Mansour Mbaye. noonu la demee moom voilà moom a daan nag. à l'arène nationale sa premier combat arène nationale jigul moom laa ñàkk quoi dëgg yàlla. lan moo la xañ. waaw combat boobu gars yi ñenn ñi supporters yi moom ñu ne man ma jaay combat bi parce que dama yàkkamti quoi. non moom moom ñi ma. waaw ñi ma bëreel ñi ma berel moom moo si gën a ndaw. waaw dëgg yàlla ñëwoon naa itam xawoon naa kaa xeeb tuuti rek. mais dama ñëwoon kut kaa kut moom pour jëlee ko fi. finalement. waaw nga juum. waaw si laa juumee nag. parce que maa juum waay wala moom moo la juumloo. non maa bëre ba daanu ma dëgg yàlla. parce que bi koy jël pour wañ ko si laa dëggee moo mu dëgg si saako bi nag am ab après mu yóbbu ma. si nga ñàkk sa premier combat dans l'arène nga jóge ci ñu jox la grand combat. waaw ñu grand combat ma Scorpion. Scorpion 6 janvier waaw. maa ko daan si lan. ma dul une minute wala ma ne waaw ay une minute tuuti rek. Eh, une minute tuuti waaw dañ bëre ñuy léewtoo après ma cookaas ko xam nga di reculer quoi mel ni ku ko ragal léegi bi ñu ñëwee ba si saako yi nag ma taxaw xam naa ne kut gaa kut day ñëw te saa bu mébee rek combat bi day jee parce que loolu dama yàgg di ko bëre léegi moom bi mu demee rek après laa ko jël ma juyoo ak moom jël tànk bi wañ ko mu daanu. noonu la nga signé sa sa sa ñaata sa cinq euh, sa sixième combat nga signé cinq victoire benn défaite euh, palmarès bi rafet na. waaw palmarès bi moom sant yàlla rafet na trop dëgg yàlla. bëre bi fu mu jógee foo jëlee bëre bi. waaw bëre bi ñun comme nii rek ama booy dañu ñëw fekk suñuy garant yi di bëre quoi après bu ñu ñëwee nekk si wet gi di kontagantu xam nga comme bëre lii gars yi di wax rek da nga koy a jàng bi nga doonee lebu bi nga doonee ndaw. surtout lébu quoi ñun xam nga tefes gi lañ am gis nga fii ni muy yaatoo ñun ñëpp fi lañ jàngee bëre ñëw di bërentu di bëre fi nekk nag xam naa ne moom la demee nag di bërentu di bërentu ba yàlla dogal ñu di ko ndànk-ndànk di ko dem ba màgg ak moom quoi man 2015 laay doog a kii 2013 laay doog a entraînement bëre kese laa daan def wóor na yàlla 2013 laay doog a entraînement di daw nii di entraîné d'accord mais instant bi nii instant bi may wax ak yow Euh, mën naa bi saison bi tëjeeg léegi yàgg na ça fait 3 mois gars yi ngi wax saison bi léegi mu tijji wala quelque chose de ce genre mais instant bi entraînement yi nan lay demee. waaw ñu ngi si kawam rek ñun moom bàyyiwuñu boobu léegi moom wax dëgg yàlla depuis février hein ah, bima joggé ci combat bobu février demoon na Gambie def fa un mois pour waaja sama parce que 4 avril la waroon a bëri bima ñëwé ci mois de mars bi ñu né ama ah, feebar bi da am. bàyyi ñu nag ñuy continuer après bu ñu ñëwee police yi dàq ñu ñu dem ñibbi yenn saa yi may ñëw suba gi xam nga ngoon gi bu ñu ñëwaatee police yi dàqaat ñu ñibbi xam boobu ñu ngi si couvre feu bi mais bàyyi ñu nag bàyyi ñu. ba waaw mu ngi entraîné ba léegi. pare nga pour saison bi. Mhm. bu doon suba suba suba ma bëre. suba buntu yi ubbi na rek. Mhm. abooy ñëw dalante gaay suba ma bëre pare nañu instant yi nii. Euh, euh, il paraît que daaw bi nga bëree daan kii di euh, scorpion dañ la woowaat joxaat la grand combat n'est-ce pas. waaw tëngeej waroon bëree kan. 4 ma kii fils de la bawal mhm, waroon bëreel waaw. xam nga ko. waaw na benn combat moom laa seetaan xaw ma ko carrément. benn combat am nga seetaan moom laa seetaan waaw. waaw man seetaan la man benn combat am laa seetaan mu caat bu ngewel. waaw léegi nooy ñu ne la avance pare nañ ñun moom bu ñu la xamulee sax li gën a sawar si yow mais xanaa nag mbër bala nga koy jël nga laajte xam kii kan la est-ce que danger la wala du danger. non ñun moom amuñu problème ñun ay lebu dara billaahi man ñi ma bëreel ñëpp sama premier laa xam kii may dajal.